Salut les amis de eSport TV merci encore gars de la confiance renouvelée merci de vous di like merci de vous di merci également di bàyyi seen commentaire di wax également rek fep fu doomu sénégalais nekk ah, Europe Afrique Amérique États-Unis Asie ah gox yi gëna sori Chine Brésil Italie ba bàyyiwuñ kenn ñu ngi jël suñu loxo ak gox yi gëna a sori Sénégal di leen jaajëfal di wax ne lépp lu match suñu borom la lu manqué ci ñun la di wax également gars yi ngeen wéy di abonné di bës ci cloche de notification bi di wax également képp ko xamné ne yaa ngi tëdd feebar suñu borom yalla na feug sa bop nga juk nga nekk ci hôpital ci kër yi ñu nekk ci kaso également suñu borom yalla na leen fa jëli tegaat leen ci yoon bu leer musal musal également bépp doomu aadama boo xam ne yaa ci biti di ñaan également ñi nga xam dañoo dëddu aduna yépp ñu suñu mbokk mak rak jëkkër jabar ñëpp di wax de manière générale parce que famille bi ñëpp ngi fi ay goor ngi fi ay jigéen ngi fi di leen wax yàlla na leen suñu borom xare arjana fir daw si et pendant ce temps gars aujourd'hui on va parler ci li nga xam moy ki di donc euh, plutôt euh, Edouard Mendy clean sheet wax pap Abou Cissé buteur Nampalys titulaire également pap Ousmane Sakho actuellement di def lo graw graw le joueur l'avant-centre du Sénégal bi nga xam mi ngi évolué ci Simba li nga xam nag moo jëm ci VAR wax na gars yi concours bi nag ku ko bëgg gagner je dis dama poser question yu bëri da ngeen di bolé def ben réponse exacte ki gëna def réponse réponse exacte moy gagner mais également encore une fois gars yi ñi nga xamné abonné wuñu di jouer malheureusement ku abonné bok ci famille bi yaay mëna a lool parce que ici c'est une famille et c'est comme ça qu'on fonctionne di jalé également suñu confrère ki nga xamné donc mom moy Ndatte Diop dëddu àdduna ñu koy ñaanal mom ak njabootam ah, ñu leen koy jalé njabootam diko ñaanal mom yalla na ko suñu borom xare àjjana fi dawsi notre confrère journaliste de la RFM di wax ñom tamit ñu ñaanako ko gars yi ñëpp nañ ko ñaanal pendant ça également image bi nek image u VAR bi pour man li lañ bëgg di gis chaque semaine chaque compétition ñu koy gis ci Sénégal mooy gis nga ñi jour AS Pikine yi supporter ak supporter wa TFC ñu leen di jaajëfal image lañ bëgg gis dem wax chapeau à vous parce que football day boole du xaajale ki nga xam mooy Kyrie Irving en parlant de basketball moom actuellement gars yi nag moom mi ngi jut foofu ci États-Unis ndax moom néna du vacciné wu du vacciné wu solo masque lool nak jur coow ba tax na tey match bi joué ci kaw ci tribune lako sétane ndax ki nga xam moy maire New York bi aussi dafa génné ne Kyrie Irving mom jamono ji bu féké dafa bëgg jouer wat il faut mu vacciné wu suko ko deful moom mën dugg ci terrain mais du yéeg li nga xamné du jouer bok day dem yéeg rek ci tribune yi daal di seetaan match bi donc tay Kyrie Irving ci kaw la sétane mbokam yi coéquipier am ñu daal di joué pendant ce temps li nga xam mo jëm nak ci barrage coupe du monde wa Maroc ñoo génné sen liste liste bi ñu gis ci Hakim Ziyech gis ci également Mezraoui gis également Abdé et ki nga xam mo Hakim yeeg waxon na dafa bàyyi li nga xam moy sélection nationale mom nag confirmé na ko nee du ñew parce que convocation mom du dem répondre ben yoon mais aussi Mesraoui mi nga xamné actuellement moy le défenseur de l'Ajax Amsterdam Gaël diko di notamment Barcelone mom actuellement aussi mom nee du dem fofu parce que nee mom gaay joxuñu ko cër tax na moom déclaration la def ci compte Instagram am bind benn lettre ne moom depuis euh, plusieurs matchs ngi nii convoqué wuñ ko gars yi waxuñu ko lu tax convoqué wuñ ko entraîneur woowu ko fédération woowu ko DTN woowu ko kenn woowu ko kenn jëmul nemmeeku lu mu def depuis boobu même Coupe d'Afrique bëggoon na jouer mais gars yi malheureusement on lui a pas donné de raison joxuñu ko opportunité donc ñu tey bëgg toog ba tey bëgg ko moo tax moom nee na ñëwul benn yoon ki nga xam ne également mooy Fritz actuellement nekk le joueur de Leverkusen ñu koy wax également hein, prompt rétablissement parce que actuellement c'était la pépite bi nga xam ne muy wone amee boppam moom nag tey dafa am li nga xam moy déchirure isco jambier gauche nek lo xam metti métti nañu koy wax du courage et également du courage à Chelsea bi nga xam tay gis ngeen li mo nek guichet Chelsea bi gay tay jaay ñu billet ñi sétane match bi mooy ñi nga xam dañu jël abonnement annuel ndax ñom mën nañ jël abonnement annuel li nga xam Chelsea daan ba tay way di dañ seen bop ndax dañ leen téré jaay ay billets mauvaise nouvelle bi également du côté de Everton ki nga moy Frank Lampard Frank Lampard gay 5 cinq défaites ben victoire ba mu ñëwé ci Everton ba légui mom nak dafa mel li ko Chelsea ba tax ñu jëlee ko fa moko dal dalaat moo ko di la fi Everton ki nga Frank Lampard le milieu de terrain ancien joueur de Chelsea pendant ce temps également les meilleurs passeurs meilleurs passeurs de prime League de 2013 à nos jours ñii Kevin De Bruyne 80 Christian Eriksen euh, Christian Eriksen 63 David Silva am 62 Medzul Ozil am 54 par rapport au nombre de passes décisives ki nga Gundogan le joueur de Manchester City gars yi Manchester City de ko prolonger une année supplémentaire mu dem 2024 dans mon contrat am dafa war bientôt parce que Gundogan également beaucoup de joueurs yoo métronomie, métronome yi nga xamné ki Pep Guardiola day compter ci ki nga également Manchester City mi ngi compté ci mom di Alan, Alan tay reprendre na euh, jouer tay dafa togon ci banc bi ñom ñoo gagné sax mais Alan mom wa Barcelone Laporta né na mënuñu ko dafa junni bokk na ñu mënuñu def lenn yi ci jour ci manum maanaam koom parce que amuñu ko motax ñaan Manchester City lay dem bo mooy tout et du côté des Blues de Chelsea ki nga xamne moy Malang Sarr également Edouard Mendy tay ils étaient titulaires Edouard Mendy Mr Clean Sheet comme je l'appelle gay donc le mur de Gorée tay encore il nous a gratifié d'un clean sheet Malang Sarr joué na après dafa génn mais également ils ont été solides la défense de Chelsea parce que actuellement Edouard Mendigay il a sorti aujourd'hui Ben arrêt bu phénoménal ben arrêt c'est un arrêt digne d'un champion d'Afrique digne d'un meilleur joueur du monde digne du meilleur gardien du monde qui nga Edouard Mendy génne ben spy ben tir bu graw gay imaginez mënoo sax imaginer ñuko sétane, gis nañ ko donc Chelsea aujourd'hui gars yi gagné hein. donc il a fallu attendre vers les 82e minutes 83e minute de jeu pour gis nga xam moy Kai Havertz daal di ci passe bu phénoménal bu Fernandinho donc tay ñom ñoo daal di gagné Kai Havertz nga xam actuellement gars il est à la bourre hein. ndax euh, trois matchs de def yëpp cinq match yi def trois match yi ñu joué yëpp day passe donc Kai Evers actuellement beaucoup na ci les hommes forts de des Blues de Chelsea waa Chelsea ah jaayu leen wax des supporters de Chelsea qui sont nombreux ici donc Edouard Mendy quand même qui a pu aujourd'hui encore garder ses cages inviolées kenn dugalul ci ay cages am Edouard Mendy donc Edou Mendy ni ko le futur inshallah ballon d'or africain et également probablement Mok Sadio Mané nañ ballon d'or mondial pendant ce temps du côté de Leicester ki nga xam ne mooy police Mendy gars il était titulaire Nampalys Mendy le 23 mars 2021 la ko nous a comme titulaire tay il a joué comme titulaire malheureusement nak dañ leen door donc tay ñom Arsenal mo leen door 2 buts à 0 but nak nag ki ko Dugol donc ki nga gis Thomas Partey le Ghanéen mo Dugol ak Alexandre Lacazette sur penalty ñom ñal daal di leen di buts à 0 mais Paris Mendy il a fait un très bon match aujourd'hui dugg na ci match milieu bi ah, def na limu mën et tout malheureusement dañ leen a gagner pendant ce temps également ki ngeen gis ni di Jesse Marsch nga xam ne mo moo donc ki nga xamne moy El Loco donc ki di Marcelo Bielsa ci Leeds donc euh, tey jii la ñu am première victoire depuis ba ñuy ay défaite mom Jesse bi première victoire dans l'histoire de la Prime League parce que mom mi ngi soog yexi fofu prime League yor fa lead. pendant ce temps également prime League Limoy moy donc classement provisoire bien pour l'instant ñi la demeegum Manchester City Monaco, nek ci kaw am li donc 69 points Liverpool am 66 points Chelsea am 59 points Arsenal 4 quatrième Ligue, am 51 points gars on part direction Italie ak moto bi nga xam moy Zlatan ibrahimovic mom tay suis la ñëwé hein mom tay Zlatan fi la génnee ni la ñëwé fa xam moy ci Milan le patron de Milan le mom lu ko neex lay def donc et de ki nga xam moy donc Zlatan Ibrahimovic sur sa moto yobuñu Italie Italie bi nga tainak tay nak donc lu Napoli mom mo gagné 2 buts à un grâce à un doublé de Osimhen mais également ki nga xam donc le capitaine hein, Kalidou Koulibaly capitaine l'équipe nationale capitaine également du Napoli tay woné na hein, il a fait un match très très très très somptueux un hein. match très haut niveau de def aussi même moom moo permettre ñu daal de gagner 2 buts à 1. L'autre, tax na ñu nekk haut du classement Napoléon Napoli bi nga xam ne ñoom daay dañoo victoire pour a également la chance on di espérer gagner donc Série A pendant ce temps également Pape Ousmane Sacho, mon mi ngi wane boppam tey nag ah ci li nga xam mo jëmon ci ah, ci compétition africaine yi mom Pape Ousmane Sakho moo tax Simba dal di gagner tay ñi nga xam moy renaissance sportive Berkan un but à zéro mu duggal un but somptueux duut gaa yëpp la def Pape Ousmane Sakho dal di duggal actuellement mën nañ mo moom ak Sadio Mané bokku nañ ci les meilleurs avant centre du Sénégal ñi nga xam ñoo gëna performant ci Sénégal ci walum duggal parce que moom mi ngi enchaîné donc mom nga xam on l'a formé à Jambar demono na fi tuggal ñëwaat football fi nga xam moy mooy FC jugé Teungueth FC nak dem Simba on lui souhaite bonne Deschamps di ñaan mu jël benen club bu gëna mag ci Europe également ñëw équipe nationale parce que mi ngi wone né aussi au Sénégal yi suñu joueur yi nga xam ne ñi ngi des ci yenn championnat yi muy ci Sénégal wala ci Afrique ñi ngi wone seen bop et jaajeuf à Ousmane Sakho pendant ce temps Marseille tay lay jouer et également gars yi koy sétane donc di ngeen am opportunité gis ki nga xam né moy Pape Alassane Gueye au niveau du milieu de terrain mom ak Euh, Camara ah Boubacar Camara bi ñu yaakaar moom aussi dina ñëw équipe nationale a Guendouzi ñoom ñoo fay nekk ki nga xam ne donc mooy Bamba Dieng ci banc lay toog et du côté de Rennes ki ngeen gis ne si ginnaaw Gomis donc tey ñoom ñoo dóor fekk ñi leen dóor leen loolu ñaaw na def li nga xam mooy Lille euh, Lyon ñoo leen dóor 4 buts à 2 ñoom ñoo mëne woon sax 3-0 après 4 ans après ñeñu égal am dugal benn but dugalaat tamit deuxième but et pendant ça également ñi nga Strasbourg de Habib Diallo ñom ñom ñoo gagné Strasbourg nga en 28 matchs ils ont récolté 47 points lool nak nekk pour la première fois ci saison bi ak dernière saison Strasbourg egg le nonu nga xam Julian Julien Stéphane le fils de Guy Stéphane l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal Paris Saint-Germain ñom li leen bind tay Mbappé à Paris Leonardo au pilori manam Leonardo yow saa mom jarato fi dara nañ fi génn lool la tay supporters parisien naa accueillir ñi nga xam ne mooy waa Paris Saint-Germain même bu fekkee ne Paris Saint-Germain moo dugal tey 3 buts ah moo tamit 3 buts à 0 Mbappé moo dugal loolu nekk 15e but 10 passes décisives également pour ki nga xam ne euh, donc Lionel Messi mais ki nga xam Neymar aussi dugal na téwul ben yoon ñi nga xam mooy supporter parisien dañu doon yuuxoo Neymar di ñi nga xam ne di jubilé di ki nga xam ne scandé turu ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé Kylian Mbappé mi nga xam ne gars yi ñi ngi naan bon moom c'est fini au niveau du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé bi ne bon jeex na ñeen ñi ngi naan waa Marca ñi ngi ne moom signé na contrat am donc principe de principe depuis le 30 janvier et tout Kylian Mbappé en tout cas fin de saison dañu xam ndax day dem wala du dem mais en tout cas daal rumeur yi ñi ngi wax ne fi ni moom il en a il en a fini avec le Paris Saint-Germain signé na fa nga xam ne mooy ci Real de Madrid fa la jëm moom bu match bi jeexee dafa dem nànk dem seetaani handball Paris Saint-Germain doon joué tey ñoom sax ñom ñoo gagné pendant ce temps ki nga xam moy Lionel Messi tay encore la na baar bi 8 ah, huitième fois de la saison muy laal baar bi Lionel Messi nga xam actuellement donc moom mooy euh, deuxième meilleur buteur li nga xamne moy donc Paris Saint-Germain avec sept buts au total mom tay également gars yi ko critiquer du ko yuuxoo pendant ce temps aussi ki nga xamne moy donc sen ancien coéquipier donc du FC Barcelone Luis Suarez mo def na ben message Instagram né football da gaaw faté fàtte tax nak ñu ki football mais yeen amna lu bari loo def ci walu football kon loolu kenn mënu ko fàtte ñu la war a jox cër ki nga xam également tey lay joué muy Piqué Gérard Piqué six centième matcham les joueurs joué avec les Blaugrana du FC Barcelone Gérard Piqué formé au FC Barcelone jógee fa dem fa nga xam ne mooy ci Manchester United dellusiwaat donc depuis boobu il reste au niveau du FC Barcelone Barcelone mi nga xam également seen jigéen yi tey ñoom ñoo gagné donc championnat vont finir falloir Espagne, nous 24 victoires sur 24 matchs, dougal 136 buts encaissé 6 buts, tay nak ñom ñi nga Real de Madrid 5 buts à 0 lañu avec donc un double de Alexia Putellas nga xamné moy ballon d'or euh, féminin actuellement. Donc c'était les informations, toujours un plaisir de vous servir. Wayne di like, wayne di abonner, ja ngeen chef